am na ñoo xam ne ni ñu ko waxee neexul ñeneen ñi ba mu nar a andi coow ana lan ngay wax mbirum histoire ku mel ni Iba Der am na loo xam ne wax na ko ci histoire du Sénégal bay ci bindin mi mu am a xam ay jafe-jafe am yeneen euh, famille religieuse yoo xam ne gis nañ seen bopp ba mu nar a andi coow. waaw xam nga euh, moom day normalement kilifa la goo xam ne gi xam nañ ko ci ñeent fukki at ñu dafa agrégé histoire kon nag lépp loo xam ne li muy wax la di ko bind mu jëm ci taarixu réew mi waroon naa mën a tegu ci yoon waroon nañ koo mën a gëstu lëkkaloo ci ak ñi nga xam ne ñi ñoo ko gën a xam ba wax ja mën a tegu ci yoon loolu moo gën ndax histoire bokkul ak légende histoire da ngay nettali li am. moo tax lii ma fi jot tënk te mu yaatu lool wax dëgg yàlla réew mi la itteel te intéressé ñu ba tax na ah ku ko waxul tamit ñun dinañ ko waxal suñu bopp ndax histoire bi ñun ñoo ko moom di réew mi te day baax suñuy ndaw suñu waa réew xam ko ba tax na kon euh, mooy histoire maam Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wasalaam kenn mënul wax histoire réew mi te tuddoo ko kazalika naka doomam ji ko woon pendant quarante ans diggaale nekkoon le porte-voix des sans voix daan leen di réclamer lu bëree bëri wane woon également esprit de citoyenneté mais également de patriotisme bëgg lool am réewam wax dëgg yàlla te bëgg sa réew bokk na ci jaamu yàlla te Seydina Issa moom firnde na loolu yëpp moom tamit ak réew mi trace yaa ngi fi lettre yaa ngi fi kon archive yi bu fekkente dañ koo jël rek gëstu ko war na ñoo mën a wax loo xam ne lii lu wér la duut baaraam lay doon waaye sos du ci am ah kon nag koo xam ne ki dañ laa denk liggéey bu toll noonu na nga góorgóorlu rek ba dégg nga maam nga jaarale ko ci ni nga xam ne rek moo gën a rafet yaa ngi wax léegi ndaw yi war nañu xam histoire comme ni nga ko waxee léegi macha allah waaye gis nañu ne eh, ay jafe-jafe am na te jikko yi tam mi ngi bëgg a yàqu lu mel ni Sénégal dëkku lislaam la waaye ñu ngi wax ne ay fi jigéen ak yeneen mu ngi fi am lan ngay wax eh, xale yi. waaye ñu xam ne rek eh, bakken bu mus dund di nga mus dee kon ngay ndaw wala ngay mag war na leen yar yarub diine. pour ñu xam ne dañoo war a tënku ci lislaam ta xam ne ndaw ñaa ngi dee ndax gis nga accident yi ay ndaw ñoo ci ëpp mag day dee ki feebar day dee ki dara jotul day dee ndax gis nañ lee morts subites kon nag kuy def loo xam ne lii bakka niti loo yi doon def yàlla subhaanahu wa taala dafa yebal malaaka yi ñu ñëw bi ñu sowee njabootam nga waaye soxnaam sa da caa bokk ci ñu war a mbugal malaaka yi dañoo ron suuf si jëllar bi koy yëkkati ko ba asamaan ñu daal di koy dëpp nit ñi daal di maasaloo ñu ronkos ko ay xeer lu mel noonu ku ko ku ko dégg muy waxe yàlla nekk ci alxuraanu karim war ngaa tiit te moytoo jeng jëm ci lu mel noonu kon ndaw ñi war nañoo mën a képp ku xàmmee sa ndijoor xàmmee sa càmmiñ xam bëccëg xam guddi xam dund xam dee war ngaa mën a bañ a def lu mel noonu te xam ne coow li lu bari bari bari ak loo bëgg-bëgg ku la dégg wala ngay wanewu bés bu jot ñu def nit ci perkaal gasam pax delluwaat àdduna continuer kon yàlla na yàlla suñu borom xiir ci boppam.